Kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf taax mi daanu démb ca tëngeej moom la yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy yëkkate ci seen xëtu njëkk bokk ci ñoom l'observateur mi ko tuddee musiba mbaba kumba ubbil yéenekaay bi ca cité si presse ga ca bu Rufisque Ouest ca boor yi sorti neuf bu autoroute bi fa la jëye ji xewe ba juróomi nit ñàkk ci seen bakkan muy benn waaye bu ñu naan duudu ñokke di keneen ku ñu naan Alioune Sow tolloon ci ñaar fukkeet ak benn Xaasimu Jóob amoon fanweeri at ak juróom-ñett Ibrahima Cissé amoon ñeent fukkeet ak juróom ak événement ba daanu ca la ñu faatu am na it ñu bari ñu ca jëlee gaañu gaañ soleil national di ñu ko dëggalal ci xëtamu njëkk li bind mooy am na ab immeuble bu màbbu ca Cyprès ak ba juróomi doomi aadama ñàkk ci seen bakkan Le Quotidien gis ci ay ruine ak i larme maanaam bâtiment bu nërmeelu ba jur bakkan yu tëdd jurit ay ronqañ yu bari juróomi nit ñoo ca faatu yeneen juróom-ñetti nit jële ci ay gaañu gaañu bâtiment boobee daanu démb ci Rufisque ña ca loru Tribune nee nañu toll nañu ci fukki doomi aadama ak ñett treize victimes libération ñoo wax ñaari yoo xam ne dañoo coincé ci biir bâtiment boobee daanu sursoi nañu àllarba ju ñuul kukk la ñu dund démb ci réew mi ndax bu weesoo juróomi nit yooye ñàkk seen bakkan ci bâtiment bi daanu démb ci Tëngéej am na yeneen ñaari nit yu faatu démb it ci àllarba ji ci accident ci Sédhiou ne benn ñoom bu ndaw moo fa mbëkkante ak benn moto bu yeboon ñaari nit ba ñaar ñi faatu fi saasi saasi tembe le quotidien mi ngi ñuy xibaar ne am na ay nit yu ñu jàpp ca Touba li ñu leen di tuumal mooy ñoo demoon daggate ji tiwo yu ONAS di office national assainissement ci dëkk ba ngir mën a évacuer ndoxum taw mi ñooñee ñu teg loxo Soleil national mi ngi ñuy wax nañu ay jigéen lañu tollu nañu ci ñetti jigéen jigéen sandarme yi section recherche yi ñoo leen jàpp li leen rey ba ñu dee mooy caméra surveillance yu fa newoon moo leen feeñal ca la sandarme yi sukkandiku ba teg leen loxo ñi ñu tegoon loxo ca sali Portugal ga ci Mbour ci trafiqué ay faux muy ñaari agent yu GIGN ak benn civil buñ ci àndaloon l'observateur nee nañu mandat dépôt nañu leen ñoo ngo ca kaso bu Mbour toog fa di xaar seenub àtte libération xëy ñu baaxe ay révélation ci mbir mi ndekkete seen complice bi la sandarme yu brigade de recherche bu sali njëkk a ñoo ngi ko jàppee ci buntu hôtel teeru sali moom waa ji moo yóbbu yi ba ci fa ñuy defaree faux ñu yeggee fa la ñu fekk ñaari agent yu GIGN yi ak seen ay faux billets mu di ay faux billets dollars yu tolloon ci ñaari milliards fekk nañu ci ñoom it seeni arme de service yéenekaay li mu xëyee tey ji moo di ab taxaw seetlu ci loi bi ñu fi teg te mu jëmoon ci wàññi njëgu luyaas bi li mu ci gis moom journal bi nee nañu wax ji gudd gàtt mooy loi ba dafa laj yéenekaay bi boole ko ki témoignage yu mu nangoo ci ay doomi Sénégal yuy dund ca luyaas muy Abdoulaye Diouf ab ingénieur la Sidi Sow ab tailleur la ak seen nas ndaw suñu naan xadi di liggéeye ca LONASE ñoom ñëpp ñoo ngi nit li ci xët mu njëkku yéenekaay bi li ñu dund ak seeni bailleur ci njëgu luyaas bi ñu wàññi ak yaakaar ju tas ji ñu amee ci loi bi wàññi njëgu luyaas bi Mamadou Mbaye di président bu FASIS nee ñu ci journal bi décret bi dafa yàqal bu baax a baax agence immobilière yi ndax commission bi ñu wàññi ñoom ca la ñu daan dund dund Ousmane Sonko mi ngi gën di doy waar ndax wér-gu-yaramam gu gàll góose kenn ci avocat moom Ousmane Sonko di maître Ciré Clédor Ly moo ko xam ne ci xët mu njëkku libération nee na état de santé bu Ousmane Sonko dafa gën am amul kenn ko autorisé nañ la ngir nga mën koo gis waaye yeewi yi demoon démb ci hôpital principal doon seeti Ousmane Sonko ngir yeggee ko li ñu jëlee ci Serigne Mountakha ba ñu yeggee hôpital principal may ñu leen ñu gis Ousmane Sonko ñu gis ko ñun moom Ousmane Sonko ci xët mu njëkk source këyit wi koy wanne bokkatul ci liste électorale yi mu di notification portant radiation sur le fichier électoral source wa mi ngi ñuy wax ne ba léegi Ousmane Sonko jotogu ko commissaire police bu jëppal bi ñu ko joxoon ngir mu jox ko di commissaire ma nga woon bu sebi xotaan ngir bés bu Ousmane Sonko jóge pavillon spécial mu jox ko ko moom Ousmane Sonko sursoi mi ngi ñuy xamalit ne def na démb ci alxames ji ñaar fukki fani grève de faim ak juróom-benn 26 jours grève de faim tàndarma yi ñu ne moom la ko sëriñ Muntaxa yóbbante ba démb it sursoi ne nañu duggul woon ci gémmiñam